Okay, alhamdulillah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ñu ngi santaat suñu boroom mi ñu dajalewaat ci am néegam ñu fas yéenee jël benn bind ci liy leeral suñu diine ñu koy tuddee fiq ñu koy sukkandikoo ci téere bi di minhajul muslim bu abu bakar aljazairi rahimahullah bi ñu fi mujj a teqali ko ñu ngi tolloon ci li ñuy tuddee as-sulh doonte ne ni gisoon nañ ni jëloon nañ ci la gën a am solo bunt yi nga xam ne it moo ci tegee day mbir yoo xam ni néew na suñ jamono tey di ko jëfee rawatina ñu bari ñu dëkkee ci capital yi te mooy dekkal ay àll ixyaul mawaat al iqta mooy ni ñu dogal ñu ngi noonu ay terrain te loolu buur rek moo koy def ak li ñuy tudde alxima muy ay parc réservé yoo xam ne buur a koy def atte yooyee ña koy war a soxla ñu néew a néew lañ ci ñun looloo taxoon ñu gisoon ñu dem ci alfaslul xaamis ci téere bi ci fi jumlatil ahkam fi jumlatil ahkam te mooy alfaslul xaamis bu dee yow mi yor mool bu bees bi yaa ngi ci page 334 mi ngi noonu page 334 alfaslul xaamis fi jumlatil ahkam mi ngi noonu fi jumlatil ahkam page 334 tey mooy fukki fan ak benn te la nga xam ne mooy rabi ustaani sun maam yi di ko wax rakk yi gàmmu mu tombeeg le 6 novembre ci 2022 bu dee mbokk yi gis nañu seen fi ñu yem incha allah kon day wax li nga xam ne mooy jumlatul ahkam ay loo xam ne dañ koo tënk ci ay atte yu jullit bi soxla lool ci dundam wa fihi tis'u mawaat mu ne dana la ci jàngal juróom ñeent ci ay bind almaadatul ula bind bi ci jëkk mooy fil qardi te mooy lu aju ci wàllu leblente wàllu bor taarifuhu alqard lugatan suñ la doon jàngal lan mooy alqard bu dee ci làmmiñu arab huwa alqatu mooy loo xam ne dañ koo dagg loolu lañ daan tudde qard wa shar'an amma bu dee ci sharia mooy dafu maalin liman yantafiu bihi mooy nga jël alal jox ko koo xam ne da koy jëfandikoo summa yuraddu badalahu gannaaw ba mu dellu siwaat leneen alal loolu la ñuy tudde bor wa zalika ka an yaqulu muxtaaju liman yasixu tabarru'uhu mu ne mi ngi mel ni waa ji aajo woowoon dem ci koo xam ne lislaam dana nangu jëflanteem mu ne ko aqrid nii ay waay lebal ma aw aslif nii yépp lebal ma lay firi kaza min maalin ci alal aw mataa wala lu ñuy jëfandikoo doon loolee ab ceeb la wala lu mën a doon aw xaywaan wala ak jur muddatan ci ab diir summa aruddu alayka gannaaw ba ma delloo ko ci yow fa yafal mu daal di koy nangu kon mbokk almuhim li ñuy tuddee jëflante ci wàllu alal xam nañ ne bari na mën ngeen jaayante nit ki mën nga koo may nit ki mën nga koo abal nit ki mën nga koo lebal loolu lay jàngale ni tey waaw léegi lan mooy atte bor ci lislaam xukmuhu atte bor alqardu mustahabun bi nis nisbati lil muqrid leble day lu ñu sopp la ñeel ka nga xam ne moo koy leble ci mu taxaw ca li qawlihi taala man za alladi yuqridu allaha qardan xasanan fa yudaa'ifahu lahu wa lahu ajrun karim suñu borom mu ne waaw ana kan moo may lebal bor boo xam ne bor bu baax la man yàlla mu fulul ko loolu waajal ko pay goo xam ne pay gu tedd la loolu kon mbokk suñu borom mi moom lépp mi ngi ñuy ñaax ñu lebal ko loo ko lebal dana la ko fay adduna ak alaxira yàgg ngeen dégg ci tafsir kii nga xam ne sahaaba bu màgg boobee di abu dahdah ba aaya bi wàccee mu ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon yàlla daa bëgg ñu lebal ko mu ne ko waaw waaw mu ne ko lebal naa ko sama tool bi te toolam ba ñu ne amoon na juróom benn téeméeri tàndarma lépp mu jël ko mu ne def na ko fi sabilillah loolu kon mooy li suñu borom wax wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na ba tey man nafasa an axiihi kurbatan min kurabi dunia koo xam ne teggil na mbokko julitam benn tiis ci tiisu adduna yi nafasa allahu anhu kurbatan min kurabi yowm alqiyama yàlla dana ko teggil benn tiis ci tiis yowm alqiyama yi ca sa mbokko julite ngi nii am aajo bëgg koo faj yorul lum ko faje mu ñëw nga lebal ko mu faj aajoom kooku teggi nga tiisam suñu borom dana la teggil tiis te tiis yowmal qiyaama kon dañu naan kiy leble islaam sopp na ko ci moom donte ni am na xadis yu gën a ñaaxaate ci loolu te mooy rasul sallallahu alayhi wasallam nee na ci lebal mbokk jullitam bor bés bu nekk daan ko bindal tuyaaba ku sarxe bor boobu ñëw na nga lebal ko cent mille bés bu nekk daan jàpp sarxe nga cent mille suñ demee ba fam la waroon a faye jot fayu la nga continuer ko muñal bés bu ne daan la bindal ne sarxe nga deux cent mille loolee kon ci ñaaxaate yi gën a màgg ci wàllu bor ci la bokk wa amma bi nisbati lil muqtari bu dee ne nag kay dem di leb bor ba moom fa huwa jaiz dañ naan ko li ngay def de dagan na ci lislaam mi ngi noonu mu baax lu ñu yoonal la la xaraja fii benn xat-xat nekkul ci julit dem leb waaye li ñu naan benn xat-xat nekkul ci julit dem leb mbokk julit du dem di leb alalu mbokk julitam lu dul fekk daa nekk ci aajo bu ko jar waaye doo dem mukk di lépp loo xam ne nii ngir luxe la di lépp loo xam ne nii ngir looy noncé la waaye boo demee ba ngant tegu sa kaw bu sa loxo jotul pour faj ko islam danaan la dagan na nga dem ci mbokku jullit nga leb ko nga noonu iz qad istaqdara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bakra yenente bi mas na am ku mu leboon benn gileem goo xamee ne nii gileem gu ndaw la mi ngi noonu baqaran min al ibil benn gileem gu ndaw mi ngi noonu bu dee bikr dañ koy wax ku tëboogul donte ne dañ ko wax gileem gu ndaw même bu dee tëbu na wa radda jamalan xiyaaran keroog ba mu koy fay mu fay ko gileem gu mag comme ñoo fay gileem mu tukkal may ko gile mu fay ko gileem gu mag wa qaala inna min xayri nnaasi ahsanuhum qadaan mu nekk gën ci nit ñi mooy ku gën ni muy fay donte ne loolu daan ci dellusiwaat ci biir darse bi te mooy day fekk ne kaka lépp sakkuwu ko waaye bu ko sakkoo rek day xaram amma bu dee yow yaa coobarewu de jox ko loo xam ne moo gën lam la lebaloon loolee lislaam du wax ci loolu ci loolu dara kon loolu mbokk moom mooy la nga xam ne mooy atte kii leb ak ki ñuy lebal yow mi ñi lebal yow mi nga xam ne dañoo ñëw di la leb dañ naan lu ñu sopp la waxuñu la farata la nga jël sa xaalis di ko joxe waaye nag sopp nañ ko lool yow mi lebit dañ naan dagan na ci yow waaw léegi yan charte la l'islam tëral ngiree bor mën a jaar ci yoon charte boo ko déggee mooy loo xam ne su manqué mbir ma day yàqu mi ngi noonu su manqué rek mbir ma day yàqu shurutul qard hiya charte bor mooy lii an yu'rafa qadrul qard bil bi kaylin aw waznin aw adad fokk la ñuy leb ñu xam naka la toll ci natt ko wala peser ko wala lim ko masalan tey doo ñëw rek lebal ma ceeb ñu dem jël la nga xam ne mooy jalub ceeb jox la lebal ma jur ñu dem jël ak gétt jox la laa fokk ñu xam li ñuy leb naka la toll ci lim wala ci poids wala ci natt ngir bor bi doog a jaar ci yoon ñaareel bi an yu'rafa wasfahu wa sinnuhu in kaana xayawaanan bu dee jur la gu ñuy leblente fokk ñu xam lan mooy melokaana ndax lii nag la xar la béy la nag bañ doon leblente ñaata at la am yooyu il faut ñu leeral ko ngiree ëllëg lënt bañ a am ñetteel bi an yakuna alqaradu mimman yasixu tabarra'uhu fokk bor ba day jóge ci koo xam ne islam dana nangu jëflenteem fala yastixu mimman la yamlik ki nga xam ne muumul amul droit di leble alali jàmbur la ngay leble day fekk yaa ko moom wala min gayri rachid koo xam ne ni it da ngay gis ne xelam matul ku mel noonu lislaam du nangu la nga xam ne moom mooy ak jëflante ga muy nekk di jëflante kon fokk waa ji leble moo moom li muy leble ñaareel bi mooy islaam nangu na jëflanteem mooy mi ngi ànd ak xelam su dee lii am na rek moom leblente ga dana dagan même ba doon diggante julit ak yéeféer day doon loo xam ne ni lu dagan la yenn atte moo mën a aju ci loolu atte yi nga xam ne moo aju ci bor ahkaamun lil qardi hiya an yamlika al qardu bil qabd mooy fokk ñu xam ne ki ñu lebal bis bu bor ba tegee ci loxoom moo ko moom fa mata qabadahu al mustaxrid heure bu ko jëlee kay leb malakahu moo ko moom wa asbaha min zimmatihi bu ko defee nag mu wëlbatu ko nekk ci kóllëreem ci ëllëg mu fay ko waaye ki lebal léegi am xar bu la neexee ba bala ngeen teqale ko nga jaay ko ci pla fi fi nga fi nga ko lebe ki nga xam ni dañ laa lebal ab ceeb bu la neexee sarxe ko fii nga ko lebe ñu ngi noonu ndax maadaama lebal nañ la ko dugg na sa loxo yow yaa ko moom ñu ngi noonu la am kay mooy kañ ngay fay loolu lañ lay toppee mi nga noonu ñaareel bi yajuuzu alqaradu ila ajal dana dagan ay jullit bu ñuy leblente ñu ne bis sàngam nga may fay wa kawnuhu bi duni ajal ahsan am maa nga lebaloon ko ci utuloo ko dig nag looloo gën a rafet lima fihi min al irfaq bil mustaqrid ndax la ca nekk ci la nga xam ne yombal ga nga yombal ka la leb ca gis nañu ci aay yi ñu mujj jàng ci suratul baqara suñu boroom mu ne bu ngeen dee leblente ba ci dig na ngeen ko bind kon ab julit ñëw di la leb nga ne ko ah mën na laa lebal de waaye kañ nga may fay wala yow nga ne ko ah bis sangam de da nga may fay loolee lu dagan la heure boo xamee ni nii bis ba jot na am nga droit yóbbu ko ci yoon wala jëflanteeg moom mu ne nag mu ñëwoon leb la nga jël yëkkati rek jox ko bàyyi ko ba heure bu yàlla yombalee mu fay loolu mooy la nga xam ne mooy la gën comme niñ ko waxee sànq ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu laayi biir ñetteel bi in baqiyat al aynu kama kanat yawm al istiqrar ruddat heure boo xam ne daa leboon benn mbir ca lam leboon keroog ba mu waree fay dara manki wu ci waa ji jëfandikoowu ko mën na koo delloo nam ko ko lebe woon wa in taxayarat bi naqsin aw ziyaada radda mislaha amma bu dee dafa soppeeku ci wàññeeku gu mu wàññeeku wala yokku gu mu yokku masalan ak jur la woon mu daal di am yeneen i doom ila axiri su boobaa dañuy xool lu mingoog lañ leble woon ñu joxe ko in kaana laha misl su dee am na lu mel noonu wa illa fa qiymatuha su amul mu doog a joxe la nga xam ne mooy valeur bu tol noonu bu ñu xoolee ñetteel bi in naam ñeenteel bi in kaana al qaradu la mauna fi xamlihi su dee na bor ba amul benn coono ci yóbbu ko jaaza wafauhu fi ay makan arada al muqrid su boobaa dana dagan ñu fayee ko ji bépp place boo xam ne bëgg na ko ka nga xam ne moo ko leble woon ñu ngi noonu ca mooy waa ji leble woon lu mel ne xaalis moom la koy lebal xëy na yéen a ngi pikil ba nga koy fay mu laa man kat maa ngi parcelle loolee dañuy gis ne islam di wax ci loolu dara ndax amul benn jafe-jafe ci yenub xaalis waaye bu doon te ne bagage la boo xam ne dañ ko war a fayal wala dañ ko war a yenu moo tax mu ne wa illa fa innahu lam yulzam al muqtarid wafaauhu fi gayri mawdiihi su dee na bor ba dafa laaj ay frais kaka lépp duñ kenn du ko sant mu lënkoog moom ni da koy fay fu bokkul ak fa mu ko lebe woon bi ci mujj mooy yaxrumu ay naf des na araamal bépp njëriñ yajurruhu alqaradu lil muqrid boo xam ne dana ko dana ko yóbbu bor ba ñeel ka leble bépp jëriñ bu mu ca jëriñoo islam day day bañ loolu سواء كان بزيادة في القرض أو ندون دفاي دون يوك غني يوك بوربا مثلا بدون خالص أو بتجويده ولا بو ñu daal di koy gën a matal masalan lebaloon na la xarum un an war a fay ko xarum trois ans aw bi nafin axar wala ci meneen njëriñ bu muy jëriñoo sax xaraja anil qard boo xam ne day génn bor ba in kaana zalika bi shartin wa tawaatu'i baynahuma su dee ne kay ba ñuy leble dañ koo chartoo dëppoo ci ne ko bis boo may fay bor bi da nga ciy teg dara loole day xaram ci lislam amma ida kaana mujarrada ihsaanin min al muqrid min al muqtarid bu dee ne nag ak mbaax rek ak rafetal gu jógee ca ka leb si woon fala baas loolu moom dara nekku ci id aata rasulullahi sallallahu alayhi wasallam jamalan xiyaaran rabaiyan yonente bi alayhi salaam joxe ne gileem goo xam ne nii gileem gu tukkal rabaiyan mooy gu mag sëkk dem na ba mi ngi noonu fii bakrin sagir mi ngi ko lebe woon fa mi ngi ko faye woon benn gileem goo xam ne nii gileem gu ndaw rek la mi ngi noonu wa qaala sallallahu alayhi wa sallam inna min xayri nnaas ahsanuhum qadaan gannaaw bu mu ne xam leen ki gën ci nit ñi mooy ke gën te naka xam ne moom lay fay kon day wax fi rek mbokk julit ci ne heure boo xamee ne nii waa ji dafay leble lañ mën a chartoo mooy lebal naa la nangam bi sàngam da nga ma fay amaa lebal naa la nangam da nga ma fay ba pare defal ma nangam da nga ma fay waaye da nga ciy dolli nangam loolee bu amee islam du nangu loolu ka nga xam ne nag moom mooy leb si bu nekkul loo xam ne ni ab aada la ci waa ji ñu yëg ne képp ku muy lebal te boo koy fay tegoo ci dara du la lebal xanaa daal yow yaa toobaroo sa coobare bopp rek fay ko lu gën loolu islam du wax ci loolu dara kon loolu mbokk mooy suñu bind bu jëkk incha allah bu dee mbokk yi am nañ question boo xam ni dafay aju ci wàllu bor bala ñoo dugg ci beneen bunt bi incha allah su dee ni am na naam bismillah naam na am doomu aadama bi nga enquête enquête boo xam ni jubluwoo ca xotti sutura yi nit ñi waaye dañ caa jublu ak fagaru islam bañul enquête boobu su ko defee waa ji ñëwoon di la lépp si man ko waa baax na daje ku ko xam ne ko waa yow diw loo xam ci moom ku mel noo ni dara néew ci waa da ngay laaj su xamee ne waa ju njumlang la mu ne ko bu ko lebal de truand la loolu yee dara nekku ci ci lislaam ñu mel ni rek wàll wa wàllu takk sëy masalan benn waay jóge ne dëkk sàngam ñoo ne day bëgg sa doom xamoo ci moom lu bari nga xam ko dëkk moom nga woo ko ah diw de dafay labati sama doom loo xam ci moom loolee ngay laaj islam daganal na ko moom it lam xam ci moom bu dee lu bona mu wax ko islam daganal na ko loolee dafay bokk ci cadre jëw bal sax islam daga nanu lu gën loo lu ëpp loolu te mooy soo gisee koy dem di ci jëflante ak nit te nga xam ci moom ak truand même bu la waa ji laajul nga xam ne waa ji xamul am nga droit ñëw laayu ko biir am nga droit ñëw daal di koy laayu biir waaw ma sama dal ci benn waay dafa dañ ñoo xam ci moom côté ñetti mbaar la dem takk fa benn soxna tappale ci ay wax bañ may ko fa soxna mu njaaba njale ba mbir ma feeñ mu ñëwaat fii ci Grand Médine gii tappale fi wax fi ay njumlang bañ may ko soxna njaaba njaag ba mbir feeñ bis yàlla may dox ba fekk ko ci kër benn mbokk ba ma ko fa fekkee mën a mbokk bi kii di li mu dox xóoma ko waaye bu waxee waxee soxna bu lu ko may soxna de ngeen ah mi ngi loolu ala kulli xaal heure boo gisee nit koo xam ne day dem di jëflanteeg nit ñi ca nga xam ci moom ak njomlang am nga droit avertir nit ñi même bu dee laajuñu la kal ka nga xam ne dafa am sikk sàkket am na droit laaj ñu ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bismillah naam ah ah ah ñetteelu règle ban ci ci li mu wax naan booy delloo nga delloo la bu dee ne yàquwul waaw waaw waaw c'est-à-dire que ne dane bu dee waa ji daf la lebal te lam la lebaloon dara sikku ca loolu en général li muy doon rek mooy loo xam ne jëfewuñ ko mooy jëfandikoo wuñ ko mooy masalan waa ji mënoon na la lebal benn benn fas boo xam ne dañ ni dañ koy war a liggéey lebal na la nga war koo fay la nga xam ne ay fas bañ demee ba jimmi jamono jot ñu xool ne fas bii kët moom ak bañ la koy jox amul benn différence waa ji bu ko nangoo fayee ko islam da lay nangoo fayee ko loolu noonu mu nuroo ak able looloo tax bunt bi ci tege da ngay gis ne buntu able la ndax da ngay gis ñu bëri ñu leb sax dañ naan abal ma am déet de kon bor ak able dañoo jegeyoo waaw waaye bor moom mooy lan mooy liñ la lebal yaa ko moom nu la neex nga koy jëfandikoo mu safaanoo ak able amoo droit jëfandikoo ko lu dul la neex borom te it bor bi mi ngi noonu moom it da nga koy delloo comme na nga xam ne da ngay de da nga war a delloo la nga xam ne dañ la ko abal mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw kon incha allah ñu jël bunte bu ci tege kon kon bunte bi ci tege mooy almadatu saniya buntu ñaareel bi ci jëflante mooy fil wadi'a mooy li ñuy tuddee ndénkaani ndénkaani taarifuha al wadi'a ma yuwadda'u ay yutrak mooy la nga xam ne dañ koy bàyyi di ko teg di ko bàyyi min maalin ci alal wa xayrihi ak leneen lu dul lool la day man yaxfazuhu li yaruddahu ila mawdi'ihi ila mawadda'ihi mata talaba bu ñu wax ndénkaane mooy kii ñëw indi alal wala matériel daa di koy jox benn waay heure ñu charto heure bu ko soxla mu daal di koy delloo lam ko dénkoon loolu kon da nga gis moo bor jege nañu waaye bor ci am bor moom mooy ñëw leb si bor bi njëree ëllëg mu delloo si amma kiy dénkaane moom ki moom alal ji moo ñëw déposé ko ngir ëllëg mu mën koo jëlaat xukmuha lan mooy atteem alwadiatu mashruatun bi qawlihi taala dem dénkaane sa alal day lu ñu yoonal la ngiree na ko yàlla waxe fal yu addi allazi utumina amaanata ay waay képp koo xam ne dañ ko wóolu ba teg ci moom dara na delloo lañ ko wóoloo woon ca loolu aaya bi it waroon na ko indi ci dars biñ génn te mooy ku ñu wóolu delloo lañ la wóoloo woon bokk julit ki nga xam ne daa ñëw dénk la islaam ne na nga ko delloo lam la dénkoon ka nga xam ne yaa ñëw ne ko dénk ma ko kay xanaa yaa war a gën a mën a delloo te mooy bor heure boo lebee bor nga la way fexeel ba fay bor boobee donte ne malheureusement bi yàlla wàccee alquran ñu ni dañoo tëral suñu alquran yi bopp waaye bor du rey kenn waay mbokk bor du rey kenn waaye bor mën na la indil fitna sa diggante ak sa borom kon ki ñu wóolu ba jox la nga la waay kóolute googu delloo ko wa qawlihi azza wa jal inna allaha yaamurukum an tuaddu al amanati ila ahliha suñu borom mu ne yàlla mi ngi leen di digal delloo leen liñ leen wóoloo woon ca ñe leen wóolu woon jox leen képp ku la wóolu ñëw dénk la képp ku la wóolu ñëw lebal la te way nga la way heure bu ko heure boo xam ne nii delloo ko ko jot na suñu borom mu ne yàlla mi ngi leen di digal ngeen delloo ko mi ngi noonu mi ngi noonu gannaaw ba it wa yaqulu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daana wax ne addil amaanata ila man uttuminak wala taxun man xaanak e way dellool kóolute ca kala wóolu ñëw dénk la fexeel yow ba bul war mukk koo xam ne dalaa wor pour won ne rek moom wor na ma ci nangam ko nit man danaa ko wor déedéet yow jullit bul nekk workat bul wor mukk koo xam ne dala wor idil wadiatu min jinsil amaanaat dénkaane day day bokk ca wàllu kóolite wa xukmul wadia atteb kóolite nag yaxtalifu bi ixtilaafi al axwaal danay wuute ci wuuteeg la nga xam ne mooy taxawaayu mbir ya faqad yakunu qabulaha waajiban alal muslim léeg-léeg nit ki dana ñëw di la dénk si mu nekk farata ci nangu ci nga nangu dénkaane boobu wa zalika fi ma ida turra ilayhi muslim fi xifzi malihi su dee ne julit daa toll ci xaal boo xam ne loolu na ci ñu gardel ko alalam ca xamul bi an lam yajid man yaxfazuhu lahu siwa xamul kenn koo xam ne mën na koo gardel alalam ji kudul kudul kudul yow su boobaa islam danaan la farata la nga gardel ko alalam jooju balaa alal ja nekk di sanku mu ne it waqad yakunu mustahabban lii di nangu dénkaane dana nekk léeg-léeg lu ñu sopp fii ma ida talaba minhu xifzu cheyin su dee dañoo sàkku ci yow wattu dara wa huwa ya'nisu min nafsihi te moom yëg na ci bakkanam alqudratu ala xifzihi ci kattanu mën naa ko denc إذ هذا من باب تعاون على البر البر المأمور به ndax loolu day day nekk ci diggan ci buntu dimbilente ci njekk bi yàlla santaane nekk wa taawanu alal birri wa taqwa dimbilente leen ci lépp luy jur njekk ak ragal yàlla kon bu jëkk bi waa ji daa am alalam joo xam ne kat amul fu mu ko mën a denc fudul ci yow ñu ne faratal la nga gardeel ko ko amma bu dee ne alal bi am na ñeneen ñu ko mën a denc waaye yow yi nga ne yow mën nga ko denc su boobaa sopp nañu nga jël ko daal di koy dencal loole loolu mbokk mi ngi noonu mu ne waqad yakunu qabulul wadiati makruha léeg-léeg nag jël ay ndénkaane islam dana ko sib ci nit ki wa zalika fi ma ida kaana shaxsu aajizan an xifziha mooy bu dee yow yëg nga ci sa bopp ne amoo kàttanu mën a wattu lii su boobaa islam sib na ngay jël dénkaane boobe te loolu itamit dañ koy wax lu bari ci ndaw ñi te mbokk bokk na dénkaane yi gën a grave mooy dénkaane kees nga ñëw ñu dénk la kees yow ndawal jurit loo ko mën a daw daw ko na doon kees ga ca station ba la na doon kees ga ca jàkka ja la na doon kees ga ca service ba la na doon kees ga ci lu mu mën a doon responsabilité la yoo xam ni nii heure boo yëgul ci sa bopp kattanuk goo xam ni wóoru na ne lii bépp dërëm doo ko ca mas a jël mukk loolee loo ko mën a daw daw ko sa kemtalal kattan ndax la nga xame ni nii la ci seytaane mën a jaare lool kon loolu mbokk moom mooy atte ya ca nekk amma bu dee li nga xam ne mooy kon loolu mooy atte bi ndax mbokk atte sharia ci bëri loolu lay doon mooy dañ naan lii wareetu la wala lii lu ñu sopp la wala lii lu ñu sib la i nga noonu ci yi xaraam yi dagan ak yu deme noonu amma yenn atte la ñuy mën a fekk ci biir dénkaane yooyu ahkaamuha an yakuna kullin min almuwaddi'i walmuwadda'a indahu mukallafan rashida fokk islam day gërëm ki ñëw di joxe dénkaane ak ka ñuy dénki si ñoom ñëpp ñu nekk ay muskallaf doon ñu ànd ak seen xel ñu ngi noonu fala yuwadda'u sabiyu wal majnun kenn du dem di jël alal ju am solo di ko dénk ab xale wala nga koy dénk ab dof ñu ngi noonu fokk mu doon ku majeur ku koo xam ne dafa ànd ak xelam mu ne wa dalla ala wa mi ngi noonu ah waaw mi ngi noonu waaw kon mu ne non waaw wala yuda kenn du dénkaane indahuma ci ñaar ñooñu mu wax sànq kon muy xale bi ak ki àndul ak xelam kenn du jël lu am solo dem di leen ko dénk mi ngi noonu ñaareel bi la damaana ala almuwadda indahu ida talifat alwadia la nga xam ne mooy garantie duñ ko topp ka nga xam ne dañ koo dénk su dee lañ ko dénk daa yàqu bidune taaddin minhu aw tafrit ci loo xam ne moom jiggi wucca dayo gàttañ la wucca li qawlihi sallallahu alayhi wasallam la damana ala mu'tamin kañu wóolu daal dénk ko amul benn garanti wante na xadis boobu wérul wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam man udia wadia fala damana alayhi koo xamee ne nii dañ koo dénk ab dénkaane amul benn la nga xamee ne nii garanti bu mu cay def waaye li gën a wér mooy li mu wax sànq waa ji dafa ñëw dénk la oto dénk la fas dénk la kër loolee mu la dénk yàlla ñëw ci mbiram tolof tolof dal ca fekk yow gàttañ lu woo ci sàmm ko jéggi woo dayo yi ci jëfandikoo ko dañu naan kenn du la topp ci dara waaye bu dee jur ga yaa ko sàggane oto ba yaa ko jéggi dayoo ak lu mën a doon ci matériel bu mu mën a doon yaa ci jéggi dayoo bu yàqoo dañ naan da ngay fay ñu ngi noonu bu yàqu dañ naan la da ngay fay waaw mi ngi noonu amma ñetteel bi li kullin min al muwaddii wal muwaddaa indahu raddul wadia mata sha heure boo xam ne ñaari julit dañoo dénkaanente ka ñëwoon dénk si waxtu wu ko neexee am na droit ñëw na ko jox ma la ma la dénkoon ndax loolu bokkul ak bor ndax ki nga lebal ngeen su ñente dig amoo droit di ko fayee ko sànq dig ba jotul amma ki nga dénk moom dencal ma waxtu wu ne am nga droit na ko jox ma la ma la dénkoon loolu it moo tax ba dañu naan képp koo xam ni dañ koo dénk xaalis amul droit di jëfandikoo xaalis ba lu dul da koo leer ne heure bu ko waa ji ñëwee laaj dana ko yëkk dana ko yëkkati jox ko su dee heure bu ko laajee mu yëkkati ko jox ko loolu amul benn problème ñu ngi noonu waa ji demoon ci bitig bi den den denkaane fi benn dix mille borom bitig bi mën na koo jox wecc keneen wala mu jëlee ko marchandise parce que wóoru na ko ne heure boo ko soxlaa dana la fay ka nga xam ne dañ koo dénkit islam may na ko moom it waxtu wu ko neexee mu dem woowaa dina ko kaay yóbbul sa dénkaane gi mënutuma koo denc kon loolu moom amul charte buñ ko tënk ñoom ñaar ñëpp ku nekk am nga droit daal di dellu gannaaw ca lañ la dénkaane woon ñeenteel bi لا يجوز للمودع عنده أن ينتفع بالوديعة nekkul l'islam di maye koo xam ne dañ koo dénk muy jëfandikoo lañ ko dénk bi ay wajhin min wujuh ci bépp façon jubluwaay ci jubluwaay yi an nafi bu ñu jëriñoo illa bi izni saahibiha wa ridaahu xanaa lu dul ci ndigalu kaka ko dénk ak gërëm gum ko gërëm ki ñëw na la dencal ma dencal ma rek waaye amoo droit di ko jëfandikoo lu dul moo la jox ndigal ci loolu mi ngi noonu rawatina bu dee loo xam ne nii matériel la mu léeg-léeg nga gis ku ñu ñuy wax ne nit ki bu la ñëwoon dénk la ab dix mille amoo droit di ko wecceeku amoo droit di ko nangam nañu xam ne loolu mbokku xaalis buñ koy dénkaane valeur am la ñuy dénkaane mais du ne jëmm ji la ñuy dénkaane loolu tax nit ki mën naa ñëw dénk la dix mille francs ba nga koy fay yow nga jox ko ñaari cinq mille kenn du wax ne fay fayuloo ko li ñuy bañ daal mooy nit ki dénk la xaalis nga jël xaalis ba jëfandikoo ko mu ñëw jël laaj ab xaalisam mu naan ko nangam ak i nangam amma bu dee matériel boo xam ne nii moom matériel la bu mu mën a doon ci matériel yi oto laam jur laam kër laam ay bag ay ndab laam ay lu mën a doon waa ji daa ñëw dénk la heure boo ci amee aajo nga naan ko ah man day amoon naa aajo ci nénkaane tel su boobaa su la joxee ndigal xayrun su la joxul ndigal amoo droit di jëfandikoo ay ndénkaane mi ngi noonu loolu gis nañ ñëpp mooy dénkaane bokkul ak ak liñ nar a jàng ci kanam wala boo xanaa bañ a dar su muy li ñuy tuddee àbb la nga àbb moom am nga droit jëfandikoo ko mi ngi noonu bi ci mujj mooy ida ixtalafa fi raddi lwadia falqawlu qawlu lmuwaddai indahu bi yaminihi su dee dañoo dem juyoo kii kat dama koo dénkoon mi ngi noonu masalan cent mille francs mu ne man delloo naa la la ma dénkoon suñ demee ci attekat ba attekat bi day laaj ki ñi dénkoon ne ko nga ne delloo nga ko mun waaw ñu ne ko waatal mu wat ci yàlla ne delloo na ko ko su boobaa waxam la ñuy jël illa an yaati al muwaddi muwaddi'u bi bayyina tasbutu adama raddiha ilayhi lu dul ko ko dénkoon indi preuve buy wane ne musuma delloo la ma ko dénkoon su boobaa attekat bi doog a atte ci wàllu googee kon mbokk dañuy gis ne incha allah ñaari bind yooyu la ñuy jël tey mooy la nga xam ne mooy lépp ñaareel bi mooy dénkaane heure bu ñu fi yàlla dajalee ñu dem ñu jël la nga xam ne moom mooy àbb lii lépp lu mu lay jàngal mbokk lii mooy suñu diine diine lislaam bokk na ñu bëri ci julli ñu nañ ko jàppe mooy julli koor ak makka ila axiri loolu mbokk mooy ponk yi waaye lislaam mooy mboolem jëflante yi ngay jëflante ci sa wàllu dund yépp amu ci lenn lu dul islaam wax na la jaaral fii bul jaar fi amul benn atte ci atte sharia lu dul islaam am na lu mu ca maye am na lu mu ca aaye mi ngi noonu yal na yàlla dëpp la ñu ngërëmam ci lépp lu ñuy jëflante wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wa ala kulli xaal loolu ay mbir la yoo xamee ne nii gis nañu dafa doon lu dabaate mooy ay problème mu données ordinateur yooyu xewul woon bu njëkk li ñuy mën a wax mooy ndax waa di ñëw di la dénk si am nga droit ne ko kat da nga may fay ngiree man coono bi may am pour dencal la sa alal ji loole dañuy gis ne bu dee ne da nga ko chartoo woon ci début ba islam du ban ci loolu dara ndax sorewul ak sàmm bi nga xam ne dañ koo jox ak jur mu koy sàmm ñu koy doon di ko fay loolu it noonu nga waxee bu dee ne ñoom dañoo ubbi seen site site yoo xam ne da nga koo ubbi yor say bureau wóor na ne loolu lépp dafay am laaj personnel laaj ay frais nit ñi ñëw jël seen données di la di leen ko dénk ñoom ñu koy garder ci seen ordinateur heure boo xamee ni nii da nga leen war a fay suba ba da nga leen war a fay amma nag ndax ñoom am nañ droit téye say dana ba baa ngi leen di fay loolu gis nañ ko jàngoon nañ ko suñ dars yi passé suñ dars yi dimanche yi passé wala ba ko jiitu waxoon nañu ne ki nga xam ne dafa ñëw masalan téer bi ñëw ñu koy ñëwloo ab yére waa ji ñëw jox ko yére bi mu ñëw ko ba pare waa ji fayu ko am na droit téye fa yére bu ba ba mu koy fay kon it loolu day aju ci données yooyu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam waaleykum salaam ki nga xam ne dafa takk soxna ca joxeegul can gi ndax kooku dana am droit ànd ak soxna si ba pare gannaaw bu mu fay can sëy bi moom bu dee ne takk nañ ko mu doon sëy boo xam ne nii sëy bu wér la am nay seede wëli yi moo ko mayee te it yow dogu nga ci ne da nga ko jox la nga xam ne nii moom mooy can su boobaa dañ ñaan siit moom dagan na ànd ba ngeen di ànd loolee moom dagan na allahuma nag borom xam-xam yi dañoo sopp jigéen bala nga ànd ak moom nga jox ko dara waaye nag nekkul farata la ne fokk nga jox ko dara doo nga ànd ak moom lii farata daal mooy can gi moom fokk ñu doon can gu ñu tudd wala can goo xam ne da nga koo yéenee joxe looloo tax borom bi subhanahu wa taala ne can gi bu dee da nga koo tudd nga fase ko ca mosu leen ànd ci lan genn wala la nga tuddoon jox ko ko mi ngi noonu amma bu dee ne tuddaloo ko woon benn can su boobaa yëkkatil dara nga jox ko ko loolu lépp kon ak sëy mën naa wér sans can nit ki mën na ànd ak soxnaam sa joxewul can bu dee nag la ñu sopp moom mooy bala ngaa ànd ak soxna fokk nga dugal ci dara wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam wala kulli xaal ndax ñett da laa dénk di ko jël nga dem ba xamatoo ñaata la loole moom day nekk mbiru àtte looloo taxoon ba suñu borom ne bu ngeen dee leb leen te bind leen ko loolu it moo tax ba ki nga xam ne dafa dénkaane rawatina dénkaane boo xam ne day ñëw di jël képp ku yàgg jëflante ak nit ñi xam ne loolu lu gaaw indi problème la loolu moom dañ ko war di bind kii ñëw dénk na la tey mu ñëw jël nangam tey mu ñëw jël nangam juyoo da ci gaaw lool sax da ay nattu gis naa ci am naa ci expérience ala kulli xaal su boobaa itamit yow ku nekk da nga war a ragal yàlla ci sa bopp su dee bindu leen ko xamoo ko yow mi nga xam ne yaay dénkaane woon da nga war a ragal yàlla xam ne bor li ma fa am day lu mu néew néew mun te manqué nangam yow mi ñu dénkit nga ragal sa borom xam ne day kii li ma ko yoral lu mu néew néew munta manqué nangam su ko defee ci base boobu rek ngeen di mën a jëflante bu dee kenn ci yéen amul preuve buy wane ne dénkaane bi lii moo ci des wallahu subhanahu wa taala alam amma bu dee ci wàllu la nga xam ne ni mooy ay natt ay natt ay bor la yoo xam ne nii da nga koy jël di ko di ko leblente loolee da ngay gis ne bokk na la nga xam ne ni moom mooy la ca gën mooy heure boo xamee ne ni yow da ngay génne zakat sa ña nga xam ne da nga koo am te natt ba nga boole ko te da ngay génne zakat mu noppal la mi ngi noonu su dee ne lu bari ci jigéen ñi nga xam ne ñoom bokkuñu ci génn zakat dañ naan la xoolal natt ba kañ nga fay am nisab masalan bu dee dañoo d'accord ci ne nisab bi gën a néew bu ñu mujjoon a calculer à peu près ci trois cent mille lay doon natt ba kat am naa fa trois cent mille muy un kon am naa nisab amaat na fa un an encore kon ñu ne trois cent mille yi da kon am na un an kon ñu ne trois cent mille yooyee la nga xam ne nii mooy zakat bi war na ko heure boo xamee ni ni jot na nga génne loolu zakat bu dee génne woo ko it te borom xam-xam yi maye na ka nga xam ne da nga koo lebal man ngaa bàyyi ba jot doog a génne zakat li gën a li gën a mucc ayib mooy boo demee nag ba tegg natt bi nga xool kañ nga amoon nisaab gannaaw boobu nga xool la nga xam ne nii mooy ca tege nga génne ko la nga xam ne moom mooy sa zakat loolu mooy la gën a mucc ayib ci yow wallahu subhanahu wa taala alam waaw yaakaar naa waxtu bi daal daal ci des bëri bëri waaw kon incha allah mbokk jurit ñu doyloo loolu di ñaan suñu borom yàlla subhanahu wa taala defal ñu tawfiq fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain